seetaan am nañu mbégte lool ngir fas yéene dalal bokk taalibe boo xamante ni bii sunu borom dogal na mu doon français ci wetu waajuram mu jigéen ak wetu waajuram mu góor doon maanaam doon français à cent pour cent euh, tuddoon Michael René sunu borom dogal ci 1994 euh, ci la tuub dugg ci lislaam te sunu borom jaarale ko. ci Cheikh Mourtada Mbacké muy tubaab boo xamante ni bii mu ngi euh, juddoo ci Courbevoie nga xamante ni bii mooy la défense bi nga xamante ni mën nañu wax ni mooy xolub euh, Paris waaye sunu borom baaxee ko mu tuub dugg euh, ci l'islam mën nañu wax ni itam mu takk der muritu ndax gannaaw ba mu waxee ak Cheikh Mourtada Mbacké ci ay xat-xat yoo xamante ni amoon na ko bi mu tuubee dugg ci lislaam ci la ko sëriñ bi xamal ni ko man ngaa ñëw Sénégal mu ñëw fa jàng fa muritu fa sëriñ bi liggéeyloo ko gannaaw bi mu dellu siwaat fii ba doon fi jàngale ci kër sëriñ Tuubaa gi nekk Taverny doonoon itam euh, imam euh, euh, yàlla dogal nag tey ñu dalal ko man ak suma caméraman Mbacke Mbodj fas yéene séq ak moom waxtaan woo xamante ni dana ñëw ak nun ci ak duggam ci lislaam ak wax jo waxtaan woo xamante ni bii lépp mu ngi jëm ci yoonu Serigne Touba wi ak it murit gi nga xamante ni bii dugg na ci. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe ñu ngi lay ziar ñëpp euh, ku nekk ak santam euh, di leen euh, sant di leen gërëm. waaw jërëjëf Serigne euh, Mourtada léegi nag bi nga nuyoo bokk ni seetaan ba pare euh, suma premier laaj maanaam suma première question mooy nga wax ñu euh, sa dugg ci lislaam ak it ban année nga dugg ci lislaam ak ban année nga jébbalu dugg ci yoonu murit mhm. ah maa ngi sant nu borom ndax maa ngi nekk tubaab fii laa juddu te comme beaucoup de tubaab dama am soxla ndax fii ceeb dafa bari xaalis dafa bari waaye lu manqué mooy lu ñuy wax spiritualité daal maanaam leer leer suñu borom dafa xaw jëfe daal te dama nekkoon école di jàng di bëgg egg ci ci ci xawma lan daal waaye may gis ci sama ci sama dikko ci lu mu doon jàng fii ci école bi euh, am na lu manqué mm-hmm. tamit fii eh, diine chrétien yi dafa xaw wàññi ko ba tur rek a des sax. tur bi rek moo mm. donc euh, dama am chance ma tase ak murid yi. Mm-hmm. Mm, lu tax ma wax chance tase ak murid yi ndax dama taseyoon ak jullit lu bari fii dafa am ñoom comment dirais-je il m'inspirait beaucoup de respect. maanaam murid dañ la joxoon dañ la respecté woon daal. ndax seen comportement seen seen seen seen melokaan waaye pour devenir musulman wala. Mhm. qu'est-ce qui pouvait faire changer. Mhm. bon l'islam dafa am ay ay ay contraintes tamit. Mhm. te science bi mooy ma tase ak waa Kër Sëñ Touba. ñoom waa Kër Sëñ daan ak taalibe te ñoom seen jikko dafa woyof seen jëfe dafa. dafa leer sax te dañu am benn comportement mooy dajji nit ñi xam nga mooy mooy jullit sax mhm. différence nga xam nga nous vivons dans un monde ñu nekk si benn jamono mhm. kenn kenn amatul jot seytaane mu ngi diggante nit ñi ku nekk mu ngi wut ci soxla ak ak xaalis ak yooyu te nit ñi amuñu jot euh, nekk seen diggante waxtaan ci euh, ci jullit yi benn la sax loolu dafa am ci jullit yi. Mhm. alxuraan waxul loolu sax alxuraan dafa bëgg nit jokkoo nekk benn waaye lii gis naa ci ci murit yi rek maa ngi gis seen comportement ku ne. lu sëñ sëñ bi doon wax ay naar ñoo ti moom di wax man comprendre mo saytal bi lan nga def ci ñoom euh, fekkee ma gis kenn mi ngi ànd ak moromam fekkee àndul ak moromam mi ngi dem ci moom. kon naar yi ñoo waxoon loolu Serigne Touba. waaw ci njaareem ci njaareem. ñu ne ko leen jaaxaat ci sa taalibe mooy boo leen mm-hmm. gisee ñi ngi ànd bu ñu àndul ci kenn ki mi ngi jóg jëm ci morom ji. waaw donc mm-hmm. man en tant que euh, tubaab maa ngi gis am na lu bari waaye amul dara. darandaax amuma amuma amuma diggante bu rafet ak samay morom. Mhm. ak samay morom ak samay frère ak samay morom tubaab daal. Mhm. bon yàlla def naa ne murid yi ñu ubbil ma buntu yi. Mhm. di ma wax ci yëf Sëñ Touba ndax yëf Sëñ Touba mooy yëfu lislaam. Sëñ Touba mooy ñëw ci benn jamono. bëgg di bëgg bessal l'islam est-ce que est-ce que c'est bien dit ça. Uh-huh. sëñ Touba moom l'islam mooy l'islam kenn ko waaye sëñ bi def ko wax sëñ bi nee ne ñëw na gis na l'islam mu mel benn mbubu bu ñuul waaw dama ko jël di ko fóot ba mu wax taal te nit ñi wax lan la sëñ bi wax lii mooy l'islam mhm. l'islam mu wax taal waaye nit ñi xamuñu ko mhm. ah, lu mu doon séduire ci l'islam mooy ci ci ci yoon Sëñ Tuuba ndax mënuma def différence entre l'islam ak yoon Sëñ ndax Sëñ Tuuba mooy l'islam l'islam mooy mooy mooy mooy lu rafet daal mooy jàmm kese te ku dem ci biti jàmm gi ah, dina fekk leneen mhm. lu taax l'islam dafa am tamit ay ay limite daal Mhm. kon euh, léegi ci kan nga euh, jaar ba tuub. man ma sama chance maa ngi jaar si Cheikh Mouhamadoul Mourtada. c'était en quelle année ban ban. 1994. Euh, mhm. fekk sëñ bi fii France. Mhm. ma ànd ak ma gis sëñ bi macha allah ma tuub l'islam di jébalu. jébalu mooy lan mooy. yaa ngi joxe sa bopp ci kii dina ci ku wóor ci yàlla. mooy lan yaa ngi jël engagement. ci mhm. ak benn nit ndax kenn gisu yàlla yàlla kenn gisu ko. Mhm. waaye yaa ngi gis ay représentants suñu borom. ci kaw suuf ci suuf mooy mooy mooy mooy lieutenant mooy mooy mooy mooy kii waa. jawriñ yi ou yonent bi salaam. ñoom yaa ngi jël engagement ci moom. jàkkaarloo ak suñu borom dina fexe dina suivre l'islam. Mhm. mooy lan lu seen Murtada doon wax lu lu lu lu bon luñ tere nga fexe ko génn ci bàyyi lu lu lu baax ngi fexe ko def jëfe ko mhm. lii mooy rafet na lu ñu la ikra fi diini la ikra fi diini xatta benn amul mhm. contrainte daal ma mhm. lu bon dafa leer lu baax dafa leer tamit enoon ma ñu si léegi bi nga bi nga tuubee dugg ci lislaam mel na ni demoon nga Sénégal ba am fa ab diir. Mm, waaw dëgg la ma may def euh, ma xool ñeenti at fii di bëgg a góorloo ci sama ci sama xew mi di gis euh, jëfe na jëfe na ndax lan tubaab yi ñoom du nangu nga changé noonu. loolu tax benn bis may dem si Mourtala di ko wax sëñ bi sama situation mooy lii ak lii ak lii lu seen tubaab doon wax mooy. je vais le dire en français, mais c'est Masalik al-Jinan, soit comme un un cadavre entre les mains de son laveur. maanaam sëñ bi dafa ni ab taalibe dafay mel ni euh, ab néew bu ñuy sang. ok mhm. donc j'ai compris qu'il fallait tout expliquer au cher ma wax ko sama situation en détail. Mhm. mu ne ma soo mhm. quand tu seras prêt. ñëwal Sénégal dina am liggéey. sëñ bi ne la boo jekkee rek mën ngaa ñëw Sénégal. Mhm, mhm. Mhm. donc maa ngi préparé sama sama lépp daal. bon presque ma xool six mois après wala neuf mois après ci benn màggal ma ñëw te ma toog Sénégal. sëñ bi def na ma ay teranga mu rafet sax alhamdulilah. te ma jàng foofu Touba ma nekk euh, ñaari at Touba. di jàng gënu ma sax ci ñaari at yi. di jàng di fréquenter surtout xam nga Euh, l'islam théorique la ko gis daal. théorie. ci théorie ci ay livre ak yooyu waaye c'était l'occasion ma jaxase ak nit ñi. Uh-huh. ak xale yi ak de pratique au quotidien au niveau de Touba. voilà te yàlla def naa ne sëñ bi moom mu yónnee ma Dakar di ma joxe benn liggéey benn boutique sax. Mm-hmm. bon ma def ñaari at foofu euh, Sandaga. Mm-hmm. di di di jaay foofu di jaay tisse. Mm-hmm. di góorgóorlu tamit ci ci wolof tuuti waaw après nga doog fa jógee dellu si waat après ma des sëy bi moom sëñ bi xamoon naa ne mission bi dafa xaw jeex sax. Mhm. donc sëñ bi moom moom euh, la defoon na ko ñu bari sax moom moom wax may fu nga ñibbi te mu dugal ma si kër sëñ Touba mu nekk. Euh, waaw mooy kër lislaam lu sëñ bi doon wax du kër sëñ Touba kër l'islam ndax dafa bëggoon nit ñi daje foofu. boobu ol amagul. si Ones Ubba dañ ko amoon en 2000 astaghfirullah euh, en 96. Mhm. mooy fii Kër Sëñ Touba lañ ko senti waaye beneen kër gi gis nañ Saliou jëndoon muy taverne foofu loolu mm, yóbbuwoon. waaw moo xool 2000 xëy na 2000 wala 2001 lañ ko amoon te sëñ bi moo ko moo mu yóbbule foofu en 2005. Mhm. Mhm. ma def un an foofu di jàppale xale yi si si si njàng mi. ndax fii euh, tubaab yi den imposé école école tubaab. boo amuñu jot pour pour jàng alxuraan wala nekk seen seen jikko seen jikko maam ak seen jikko papa euh, lu tax kër ga dañ ko dànjoon xale yi ci lu ñuy wax week-end ci samedi ak dimanche xale yi ñoo foofoo di nekk taalibe mhm. di di di jàppale seen bopp di di di toog seen bopp di di ménage seen bopp di jàng alxuraan di di def lépp daal mhm. lu lu nit ñi mën pour nekk mukalaf incha allah mhm. waaw mais doguma la mais euh, sëñ Mourtada hmm. xam nga ni Serigne Touba ci Zahir coono yi mu am yëpp hmm. euh, euh, les colonialistes français maanaam français yi nga xamante ni yow ci nga bokk ñoom ñoo ko yóbbee woon coono boobu hmm. tey am na doomu wax français boo xamante cent pour cent ci côté maternel cent pour cent ci côté paternel di un français mu tuub dugg ci l'islam nan nga mën a expliquer doon taalibeb Serigne Touba doon murid saare nan nga ko mën a expliquer ah, lépp dafa am ak batin ci mhm. zaahir bi moom loolu la doon wax ay ay opportunité yaa ngi jàng yaa ngi bëgg a gis te yaa ngi daje ak nit ñi li mooy zaahir bi waaye ci baatin sëñ bi moom wax na lu leer dafa doon bind ay bind ay di bind ay ay tonnu xasayd mhm. am na mu ko suur am na mu ko sànni si géej gi nit ñi ñoo ko wax lu tàng def loolu man xam na lu mu def ndax xasayd du pour yéen kese mhm. dina ko suur yeneen yeneen menneef dinañ ko barkeelu te ëllëg seen seen réew bi dina baax fi mhm. mi def na ko Sénégal waaye tamit def ko sànni si géej gi sañ mi ne jën yi dinañ ko lekk te doomu yéefiir dinañ ko lekk jën yi dinañ lekk jën yi sax ëllëg xase yi mooy mooy alxuraan sax dina dugg ci seen deret dinañ nekk jullit incha allah mhm. kon su ma Euh, sëriñ bi dafa bind ay xasida suul ko ci suuf mm. euh, am yu mu bind sànni ko ci géej gi wallaay euh, wax ni maanaam jën yi lekk xasida yooyu tubaab yi lekk ci jën yooyu mm-hmm. seeni doom tuub doon ay jullit doon ay ay ay murit ok mm-hmm. lii dafa am mm-hmm. alhamdulilah ah. kon sëñ Mourtada loolu leer na ñoo ko déggandoo Euh, mais bëggoon naa nag nga ñëwal ma ci euh, yoonu murit bi euh, ndax yaa ngi jàng xasida yi noo koy jànge ak ndax yaa ngi jàng alxuraan nan ngay pratiquer. Mm-hmm. ah moom ñun ñuy góorgóorloo comme ñëpp. Mm-hmm. xasayit moom dafa yomb ndax sëñ bi dafa ne alxuraan mooy ndeewu xasayit mm-hmm. donc saa su ne ñuy góorgóorloo di jàng ay xasayit yu gàtt ndax liggéey bi. liggéey bi dafa am ndax liggéey moom. liggéey mënta ñàkk mhm. ci diina bi laa bokk mhm. yooyu góorgóorlu ci liggéey bi ndax liggéey mooy li nga lekk mhm. doo yelwaane sax tamit yaa ngi génne addiya bi di ko